complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi nga xam ne moo nekkee ci tubaa ñu naan ko université bu Touba ñoom nag am na ñaari UFR yoo xam ne jot nañ ko ubbiwaat benn bi jëm ci wàllum technologie information ak communication ak beneen boo xam ne dafa jëm ci wàllum mbay loole nag nekk na UFR yu am solo yoo xamante ni kii di coordonnateur bu complexe bi di professeur Mor Faye indi na ci kàddu ñu ànd teelu ko. daaw comme ni ngeen ko xamee université bi tàmbali woon na ak ñaari UFR UFR bu njëkk bi bu ñuy. jàngale affaire diine ak affaire kàllaama arab bi ci toppoon mooy IFR euh, bi ñuy jàngale affaire kër docteur yi mooy science infirmière obstétricale euh, moom moom mooy licence bi ñu lancé woon daaw ci IFR sant euh, métier de la santé daaw léegi nag ren li ñu li ñu tàmbali mooy ñaari IFR yu bees ak benn institut IFR yu bees yi benn bi mooy IFR métier technologie boo xam ne nii affaire xaalis lañ ci jàngale di ci lancé benn licence bu ñuy wax licence euh, bu ñuy jàng affaire informatique ak télécommunication ak beneen licence bu jàngalee nan la ñu mën a gérer entreprise administration des entreprises léegi beneen IFR bi tijji ren mooy IFR bi nga xam ne affaire agronomie lay jàngale mooy affaire mbay ak affaire sàmm ak affaire gàncax donc moom moo tijji ren léegi nag ak benn institut bu am solo ñu koy tuddee ilamel mooy jàngale affaire kàllaama ak affaire ak affaire bibliothèque ak ak documentaire di leen former donc loolu la ñu ren muy lu am solo ndaxte euh, à partir de cette année ma wax ni liñ prévoir suñu suñu offre pédagogique bi tiggi na muy maanaam lu demee nekk IFR rek institut tiggi nañ euh, te aussi muñ ci boolee aussi institut de formation ouverte à distance day gën a enrichir plateau bi mbokk yi ba léegi ci complexe Cheikh Ahmadul Khadim la ñuy desandi ba léegi ci jotaay boobu nga xam ne moom lañ fa amaloon ci teewaayu kilifa yu bëree bëri doon ubbi ñaari UFR yooyu nga xamante ni moo jëm ci wàllum euh, technologie ak communication ak li nga xam ne moom moo di wàllum mbay mi kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fa teewoon kenn ci ñoom muy Serigne Ahmadou Badawi Mbacke moom Cheikh Mouhamad Fadel am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko. mu jëm su si solo si nga xam ne moom moo nekk ci sàkku xam-xam ak UFR yi nga xam ne moom lañ fa ubbi moom kàddu yooyu mu ko yëkkati ci turu Serigne Ahmadou Badawi mi nga xam ne mooy recteur complexe bi ñu ànd teewli kàddoom. kàddu yi nag sëñ ta bañ rek la te ku sëñ ta bañ sañ a nangu kàddu yi professeur Serigne Lamine Gueye lim doon joxe. te koy tënk rekk ci ñaari waat bu jëkk bi mooy la ñu wax ne Maam na moo ko waxoon moom lañu ñu professeur Lamine Gueye di bañal Maam Cerno dana woon amul lenn lu nit di def baatu antu am ca mu baax lim ñu gën a bañal mooy jàngantu antu jàng antu lekk antu sport antu nelaw antu ak yërëm yër antu loolu nag jàppe naa ko jàpp naa ko ci ay kàddoom moom nag firndeel na ni soree naag foofa lool. mbokk yi ba léegi ci xibaar yi bokk na ci kilifa yi nga xam ne saa su nekk ñu ngi ñëw di teewee jotaay yu am solo yi nga xam ne moom la ñu amal ci ginnaaw tàkkusaan gu nekk muy waxtaan yi nga xam ne moom la fii ci jumaay Tuba ju mag ji bokk na ci président tribunal bu Mbàkke di Cheikh ñaan àndoon ak délégation boo xam ne ñëwoon nañ teewee waxtaan yooyu léegi ginnaaw bi nag am na kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati nañ ko ci turam ñu rafetluwaat bu baax a baax li nga xam ne moom la daayira Muxaddamatul Xidma di def ci liggéeyu euh, koor gi mu nekk loolu ñu bëree bëri war nañ cee jàpp bu baax a baax ñu ànd teewlu kàddu yi. Euh, bisimilah macha allah laa quwwata illaa billah bisimilah kulli ni'matin min allah euh, dañ fi teew tey di santaat yàlla bu baax a baax a baax ndax yàgg dañ fi teew yàlla dogal na waa teewaat ñu teew fi ñun waa tribunal ñu ma ànd ak président Cheikh Niang mu nekk président tribunal bu Mbacké boo xam ne bi kenn du ko fi présenté si kër gi ñoo nekk également maître Omar Diop mu nekk également greffier au niveau également tribunal d'instance de Mbacké fii nag a chaque fois daf ñu fiy invité dañu fiy ñëw si ba si wàllu weeru koor di di sant bu baax a baax a baax ndax lii nii yaakaar naa ni nit woor ba ngoon nga jox ko benn tàndarma am na si islam wax te yaakaar naa ñu fi ndogoo bëri nañ. te loolu sant yàlla te gis nañ tamit daayira bi mu taxawoo kilifa bi ginnaaw bu ñu nuyoo également le xalif général des Mourides gis nañ daayira bi mu taxawoo bu baax a baax a baax la la la xalif gis nañ également tamit seen liggéey si biir jumaa bi ndaxte ay lu ëpp junni nit dañ fi ñëw di fi ndogoo si te loolu sant yàlla la ñëw nañ fi daaw ñëw fi daaw jéeg ren également teewe nañ ko ñu ngi ñaan yàlla comme ni mu ko waxee léegi ñu yàgg fi teewe euh, di di ko di Euh, le tribunal nag à chaque fois ñun xam nañ également suñu liggéey si wàllu dëkk bi président tribunal bu bu bu Mbacké euh, xam nañ liggéeyam procureur également xam nañ liggéeyam biir dëkk bi lépp lu ñuy liggéey également dañ ko teg si wàllu yoon ak également tamit war euh, ma dëkk bi tamit lu laa ñu ko ci def. mbokk yi ba léegi ñu desandi ci nemmeeku yooyu nga xam ne kilifa yi ñu koy amal fii ci euh, jumaay Tuubaa ju mag ji ci euh, waxtaane koor gi ak ndog yi nga xam ne moom lañ fi amal ndax kilifa ñu koy rafetlu bu baax a baax bokk na ci honorable député Ahmadou Bara Dolly Mbacké moom nag ñëwoon na fi ginnaaw nag boo xam ne teewee na waxtaan yi nga xam ne moom la ñu amal ci ginnaaw takusaan gi moom nag yëkkati na ay kàddu ci liggéey yi nga xam ne moom la daayira Muxaddamatul Xidma di amal ci euh, jumaa ji mu nekk loolu war nañ cee jàpp bu baax a baax tey moom jël na engagement ne incha allah at yi ñëw dana ci gën a taxaw bu baax a baax ne lépp loo xam ne moom la ñuy def ci jumaa ji danañ ci dugal loxoom ba mu euh, gën a am solo ñu ànd teewluy kàddoom. ñu ñëwoon tey seet si liggéey bi fekk si waxtaan wi bi ñëwee li njëkk a déglu ci waxtaan mi dafa am solo mooy fi jamono toll ak jigéen cër bi ñu ko war a jox ak bi ko lislaam joxe ak nan la war a def pour mën a bokk société ak liggéey ak buy liggéey na la mën a mën a sàmme boppam ba nga xamante ne li ko borom wax digal ko dana ko def mais li mu war a digganteem ak borom këram dana ko def ak digganteem ak njabootam muy waxtaan woo xamante ne ñu ngi koy rafetlu bu baax bi noppee tamit ñu ànd ak daayira Moukhaddamatoul Khidma bi wër liggéey bi comme ni nga ko waxee liggéey bi man maa ngi doog a ñëw pour gis li si biir parce que dama daa ñëw rek euh, en tant que doomu dëkk bi taale bi sëriñ bi xam ni fii ngeen nekk dama fi war a nekk fi ànd ak yéen summiku bu ma ko mul ngeen nekk fi yi ma yàlla wërsëgaleel ci sëñ Tuubaa tax ma jël ko dugal ko ci askan wi jox leen ko waaye mosuma nag xalaat ni deme na ni moo tax damay sant yàlla bu baax a baax di sant Seex Bamba di leen gërëm ndax bi ma xoolee ñi nga xam ñoo fi ñëw di fi ndogo sama xel dafa dem ci Madinatu nawara ak Makkatal Mukarrama ndax uh, ku ne xam na ni uh, sa koor daanaa fa dem falaa daa demee dafa def leetu xadar gi fukki fan yu mujj falaa ko doon defee comme nii nga xamante ni noonu la ci jumaa ji noonu la def jumaa yi uh, bi noonu la def tamit ci kaaba gi kon jàpp naa ni li Serigne Touba moo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn nattluwu ko yéen ñi nga xam yéen fi nekk tamit ak ñi ne foofu di ko joxe euh, benn lan ñu wër tamit li commencé wetu ko Serigne Saliou ñu xool mbooloo mi ne foofu muy góor ak ay jigéen ngeen ber leen comme ni ko lislaam diglee ñu bañ a jaxasoo ma jóge fi wër fi nga xamante ni moo jëm ci mbirum faj mi paj mi nga xam fi leen def jigéen ñi def ñu góor ñi nga xamante ni gis naa ni loolu day lu am solo parce que wér-gu-yaram dafa am solo ak dëkk bi ni mu demee ak fi nga xamante ni mooy jumaa ji mbooloo mi fi daje ngeen xalaat xalaat bu am solo lu jël maanaam matériel bu toll nañ si ay médicament di leen ko def di leen faj gratuite loolu jàpp naa ne képp koo xamante ni ñëwoo war nga fi ñëw ku fi ñëw tamit sa xel doon tooy ba lépp loo fi doon benn nga def fi fukkam man de fas yéene naa ko fas yéene naa incha allah ala ji ma Serigne Touba jox dama jaayante woon ak moom lu ko loo ma jox dinaa def si askan wi dinaa gën a farlu gën a góorgóorlu ba du ma def lépp de xëy na bëgg naa ko waaye dinaa def incha allah soixante dix pour cent yi ci li nga xam moom la ñuy jëfandikoo chaque année bu neexee yàlla parce que nag ku fi def lu nekk rek sa bopp nga ko defal. président bu conseil départemental bu Mbacké di Serigne Fallou Mbacké moom Serigne Mbacké Soxna Lo yabaloon na benn délégation boo xam ne ñëwoon nañ fii ci euh, jumaa ji ci waxtaan yi nga xam ne moom lañ fi amal ci ginnaaw tàkkusaan gi mu nekk waxtaan yoo xamante ni ay thèmes yu am solo lañ fi bi nag bi nga xam ne moom la fi yabaloon ci jiital Serigne Fallou Diop ñoom it yëkkati nañ ay kàddu yi nga xam ne mu bàyyeekoo ci euh, président conseil départemental bu Mbacké di Serigne Fallou Mbacké ñoom ñu rafetluwaat euh, li nga xam ne moom la daayira Muxaddamatul Xidma di amal ci biir weeru koor gi fii ci jumaay tubaa ji ñu ànd teewlu kàddoom li may dëkk ci dëkk bi lépp lépp musuma xam ne lu mel nii am na fi ba lu toll nii dafi dogoo ci cee doomu aadama bi ma fi dikkaatee daaw la ma fi fekkoon damaa fekk mu yokk léegi laay waxtaan ak sëñ Babacar mii ci jumaa ji ma ne ko baa xam nga ne feeg dix ans budget bi ren bii deux mille vingt quatre bi day multiplier par de te fii moom li fi am damay wax ne xëy na xéewlu sëñ Tuubaa rek la waaye yéen ñi ko def te du ko defee ci turu Muxaddamatul Xidma ak di ko defal jullit yëpp jiital ci Serigne Mountakha Al Bachir mi nga xam ne mooy xalifa central de Mouride yàlla na ngeen ci dajeek ngërëmal sëñ Tuubaa mi tax ngeen di ko def mboolem lu ci yiw yàlla na yaatoo yaatoo yaatoo ba daj mboolem fu ab jullit nekk ci adduna bi suñ borom mën na ko yàlla na ko def ñi ngi am mbégte laat lu yaatoo yaato yaatu ci dikk gi am mbégte lu yaatoo yaatoo yaatu ngir di ko ànd ak yéen caat at mu nekkit ñu ci gën a feddali suñu kolore bu baax a baax a baax ci suñu diggante ak Muxaddamatul Xidma relation yi ne am mënta passé ci wax naa ko léegi ci président commission sociale te lii dara jiitu ko ci sociale ay jullit yàlla yu dem liggéey ba wàcc wala yu dox ba yegsi ci jumaa ji waxtu dog fekk leen si ñu dikk dogoo ci loo xamante ne si ne doo ko yëkkati ci sa poos te ku ne xam ne ne lii xaalis a koy def waxuma la jëmmi jumaa ji waaye sa kër ga nga dëkk sax ak sa njaboot sooy génn da nga yëkkati ci sa poos ci sa jiwa yëkkati dépasse joxe ngir ñu waajala la ko ndogu kon ku ne xam na ne relation bi nga xamante ne si na tey conseil départemental war na ko am ak Moukhaddamatoul Khidma mooy ñu accompagner leen ci jëf ju réy ji nga xamante ne si ne yéen a koy jëf tey it noonu lañ ko fas yéene di ànd ak yéen tey ñaantu suñu borom mu yokk ko baax a baax a baax a baax. mbokk yi ba léegi ci xibaar yi bokk na ci këru liggéeykaay gi nga xam ne moom lañ naan Sonatel. am na délégation boo xam ne yebaloon nañ ko fii ci uh, jumaay Tuubaa ju mag ji ci waxtaan yi nga xam ne ñu ko fi amal ci uh, weeru koor gi mu nekk délégation boo xam ne biñ ñëwee rafetlu nañ uh, liggéey bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma ñu ngi koy amal ci biir jumaa ji ak fan yi nga xamante ni ñoom dafa jëm ci seen liggéey mu wàllum Sonatel ak ligne yi ñoom nag nee ñu umpale woon nañ bu baax a baax liggéey bu bëri ci jumaa ji ak ni xam ne noonu la ko waa Muxaddamatul Xidma di taxawee ba tax na ñoom jël nañ engagement ne incha allah at yi njëw dugal seen loxo bu baax a baax ci liggéey liggéey bi Mouhamed Ndiaye moo wax ci seen kàddu ñu ànd teewlu ko. tey ñu kontaan lool si invitation bu ñu ñëw fi tey si jumaa ji euh, fekkee si ndogu li mu dal loo xam ne bëgg nañ si lool te te ñàkk ko teewee erreur la parce que man tey lu ma gis fii tey dama toog mu yàgg ma ne sama collègue bi man lu ma gis fii yëpp ku koy financé par jour. loolu laa njëkk a impressionné mu laajte kan moo koy financé par jour donc loolu moom ma njëkk a impressionné donc lu si waay dugal rek euh, néew na loo si mën a yokk yokk ko parce que dama évaluer ma ne fii est que nit ñi ñii diñ fi dépensé 4 millions par jour wala 5 millions man loolu laa évaluer man sama sama si si lu gaaw donc donc mu doon lu nga xam ne man su ma delloo euh, ma naam maa ngi koy doo ko fekkee mais Sonatel day def at mu jot bu ñu nekkee si koor wala ñu nekk ci événement religieux yi daf ciy génnee euh, ñaqam delluwaat ko askan bi di ko ci def si lu bëree bari donc su ma delloo tamit lu may gën a mën a firndeel te gën ko mën a défendre ñi gën ci dugal suñu loxo. tey ji dama toog mu yàgg rek ma xool ndox yi ñuy joxe rek ma ne pourquoi pas ñu ñu ngi joxe ndox si événement religieux yi tey ndox mi waroon nañ ko financé ba ma ba ba weer bi jeex ñu waroon ne mën a yore distribution ndox bi loolu rek laa sama idée loolu la ma njëkk a jox mu dal lu nga xam ne dinaa ko yeggee man xëj na dama ma ko lu may défendre si la bokk président groupe général di PDG Serigne Mboup bu CCBM di maire bu Kaolack moom it am délégation boo xam ne yabaloon na leen fii ci jumaay Tuba mu nekk délégation boo xam ne ñëwoon nañ euh, teewal ko fi ginnaaw moom nag bu mu fi ñëwee woon ci euh, fan yi ñu euh, génn mu nekk délégation boo xam ne yëkkate nañu ay kàddu yoo xam ne moom la leen yabaloon ak taxawaay bi nga xam ne moom am ci mbooloo mi nga xam ne moom moo di daayira Muxaddamatul Xidma ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu amal fii ci jumaa ji ci biir weeru koor gi ñu ànd teewalu kàddu yi Galas Diop di kàddu yu monsieur le maire Serigne Boub yi nga xam ne yëkkati na ko fii ci jumaa ji dañ fay ñëwoon nag ci teewaayu président Serigne Boub maire de Kaolack di président groupe CCBM mu yebaloon ñu fi ñu ñëwoon di teewe si ndogu yi nga xamante ne mooy bés bu sell bi muy laylatul xadar yàlla suñu borom dogal bi ñu yebalee <coughs> ñu ñëwoon fi moom jaaroon na fi fan yële ci ginnaaw gis na liggéey bi bi mu gisee liggéey bi itam waa daayira Muxaddamatul Xidma mu bëgg cee barkeelu ñu yaatalal ko ko mu ngi leen di sant di leen gërëm ndax lii day lu am solo loo xamante ne mu yàgg na bëgg la biñ ko ci yaatalee itam mu barkeelu ci ngir liggéeyal sëñ Touba léegi bi ko jaaralee ci ñoom. wax dëgg yàlla rëccu ko te mu ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñi nga xam yéen a ko boole ci li nga xamante ne mën ne barkeelu ci liggéey bi liggéeyal sëñ Touba di sant bu wér da euh, délégation bi mu fi yabal nag euh, muy man mi ko jiite ak Pape Diop ak Cheikh Dem mi moom nag dafa amoon ngant waaye dafa waroon a ñëw teewe si bis bi waaye comme que tey moom mooy maire Kaolack dafa nekk foofu di euh, fête indépendance ah, indépendance bi 4 avril gi moom moo tax euh, mënta na ñëw waaye nag ngant la loo xamante ne bi mi ngi sant di sant Baye Moussa mbay mi nga xamante ne bi moom moo jiite délégation bi yebal ñu fi moom itam di sant képp koo xamante ne bi daayira bu nekk ci xidmatul xidma ñu ngi leen di sant di leen mbokk yi ba léegi ci euh, xibaar yi rido yi nga xam ne moo nekk fii ci euh, jumaay Tuubaa ju mag ji tey taqale góor ñi ak jigéen ñi ngir ñu bañ a gisante ci euh, bu nekkee ci jumaa ji mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne ñu koy amal fii ci jumaa ji te loole mu nekkoon ndigal loo xam ne Serigne Moxtada Mbàkke moom moo ko fiy joxe woon ñu koy wéyal bu baax a baax rido yooyu nag ki nga xam ne moom moo di Serigne am di mu njaareem moom nag yeesalaat na ko indi fi rideau yu yees yu bëri bëri yoo xamante ni moonte war nañ ko ci bërëb yooyu nga xam ne fëla la yooyu nekkoon mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne daayira mu xaddamatul xidma sant nañ ko ci bu baax a baax daal di ko ci gërëm ci taxawaay bi ci liggéey boobu lee mbokk yi ba léegi ñu wéyal xibaar yi fii ci uh, jumaay Tuubaa ju mag ji ci uh, commission bi nga xam ne ñoo yor wàllum uh, culture ak mboolem waxtaan yi nga xam ne moom la amal ci jumaa ji mu nekk loo xam ne diirub weeru koor gi dañ ko planifié defar calendrier yu am solo yoo xamante ni ak thème yu wuute ci waxtaan yi nga xam ne moom la ñuy amal ci jumaa ji ginnaaw tàkkusaan gu nekk loolee nag ki nga xam ne kenn la ci commission bi nga xam ne ñoom yor wàllum culture di sëriñ Abdoulahat Bousso Thierno indi na ci ay leeral ci programme boobu la ñu ànd teewlu ko. jërëjëf sëriñ bi euh, euh, bu dee lu aju ci biir liggéey bi nag commission culturelle bi bi nga xam ne moo yor lépp lu aju ci wàllu waxtaan yi ak xam-xam bi euh, xam ngeen ne su weeru koor jubee am na liggéey bu rëy rëy boo xam ne ñaari weer wala ñetti weer laata koor gi lañ koy tàmbali muy aju ci waajal waxtaan yi suñ duggee ci biir nag waxtaan yi ñu ngi ko tëralee ci ñetti anam. bu njëkk bi mooy day am ay thème d'actualité muy fukk ak juróom wala fukk ak am tamit ay duruus ay ay bind yoo xam ne dañ koy jox nit ki ngir mu gën koo jege muy juróom-ñett am tamit ay fatawaa yoo xam ne ay laaj ak ay tontu lay doon loolu di ñeent ci biir koor gi. niki noonu tamit am na ay activités yoo xam ne lañatu saxaafa bi da koy def muy kuréel gi nga xam ne moo yor wàllu xam-xam ci biir daayira bi muy def ay tàggat ren ji tàggat gi ñi ngi ko jëmee woon ci ñi nga xam ne ñooy way dawlu yi ñoo leen di waajal muy armeel yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi muy armeel yu jege yi ak yeneen armeel yi nga xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi dajale woon nañ leen defal leen tàggat mooy ñi nga xam ne ñooy waajal ñi dawlu euh, gën leen déglu gën leen a bàyyiloo xel li lislaam santaane ci ni ñu waajale ko fi jóge moo xam niñ koy sange moo xam niñ koy sànge ba ci niñ koy dencee ci biir bàmmeelam loolu def nañ ci ab tàggat kon loolu moo tënk liggéey bi nga xam ne lañ euh, lañnatu saxaafa bi def na ko ci biir koor gi muy liggéey bu yaatu nag am ay sous commission yu bëri yoo xam ne ñoom la làmboo euh, yu bëree bëri yoo xam ne mun ne su ko détaillé fii waaye loolu daal ci gàttal mooy liggéeyu al lañnatu saxaafa bi nga xam ne mi ngi ci biir daayira Muqaddimatul Xidma mbokk yi ñuy teewlu lii lañ leen indiloon tey jii ci xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di baaxee ci weeru kooru 1445 ginnaaw gàddaay gi di atum 2024 fii ci grande mosquée bu Touba sant leen gërëm leen dig daje incha ëllëg wala beneen yoon ci yeneeni xibaar waaye ñu tàggoog yéen ci njàngum fajar gi nga xam ne ñu koy amal fii ci jumaay Touba ju mag ji ci diiru weeru koor gi ñu ci ànd ak sëriñ Ibrahima Gueye ak sëriñ Abdou Lahad Touré wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen li fasad wala seen kasaad lam tanuni alwusaatu walusaadu bi ahli badrin alladina saadu lam yanuni murtaddun aw zindiqu man xaada li taayibu wa siddiqu lam yanhuni faasiqun aw muzabsibu aw musrikun wala musirrun yaksibu lam yanuni bi man yi ma saa walaysa yanhuni man asaa lam yanuni al yawma wa baadahu kasaad fi kulli ma hanniya bi aw fasaad lam yanunil yawma wala yanhoo xadaa saatiya illa ma yasiidu raxadaa lam yanuni durun wala danaasu wala seen oo jeetil xannaasu lam yanuni shakkun ladaa man iftaraa wa ma nahaa li jeeti min iftiraa yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد